inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Senegal dañu yeewoo naqar gu tiis bo xamé ni dal na ci kaw senegal muy ki nga xam ne moom mooy Lamine Diack Lamine ko xam xamné daana ko ko doon la ci mbir sport bu am solo waye na ginaaw bu mu ci té olympique international yalla dogal na né am na natt bu deggon ci kawam moy jiñ biñ ko jiñoon ci walum corruption ba taxoon na état France jàpp ko toll ci ñeenti at ci kaso waaye mujj mujj nañ ko fay li nga xam ne mooy ndàmpaay yi ñu ko laajoon muy cinq cent mille euros yi nga xame ni war na ko jox état France waaye nag ginnaaw Lamine Diack boobee nga xamee ni ñu topp na ko Lamine Diack nag mujj nañ ko bàyyi mu ñëw Sénégal ci ko xam ni daanaka juróom-ñetti fukki atam daanaka teg na euh, fukk ak benn xelante ak momu nak mujj na ñak bakanam dem ci guddi dañ ko denc nak fi nga xamne moy setu yof gi tay bi nga xamé ni jul nañu tisbar ba nopi kon ngeen gis ni senegal tay tis reey la yewo yaqare bu reey la yewo akum jaxle ndax ki nga xamne moy lamin jak mi nga xamni danako kilifa la ci walum sport mbay tam sax ci walum tagat yaram kon ñu ngi koy jaale ñi nga xam ne ay mbokki boppam di ko jaale xam ne Sénégal la bokk waaye tamit di eh, wax ni rek ne senegal daanako ay jëmm yu am solo yoo xamee ni ñoo fi nekkoon ci ay ponk yu bari daanako ñu bari ñoom ñu ngay wuy seen borom ndax xëy na jëmm ak bi ñu jëmm ak daanaka waral moo koy waral kon eh, ñuy wax ni Lamine Diack mu jëm ñàkk bakkanam démb daana ko ci fii ci Ndakaaru ci guddi gi dana ko dem ci incha allah tey ci àjjuma ginnaaw waxtu tisbaar kon moo nekk tis boo xam ne dal na ko Sénégalais baax baax